وتسليم على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 la wooteel 77 677 77 08. diggante yaari kër yii muy kër Cheikh Afal ak kër maam Thierno Birahim sëñ Mountakha nee na ko diggante yaari kër yi dara sañ fi ndax yaari kër genn rek la ñoom ñaar yi suñu moo leen boole woon ci seen sàng ba di Xaadimu Rasuul sëñ Tuubaa ñu àndoon liggéey boobu di ko liggéeyal sëñ Tuubaa ba kenn ku ne làq ngërëmul sëñ waaye kenn ku ne xam cër ba nga xamante ne bii moom la sax moom la suñu borom moom la la suñu borom fàggul ci liggéey boobu nga xam ne yàlla doon liggéeyal seen tubaab ñu am loon ànd boo xam ne bii ànd bu rafet la te loolee ñu a tënku sa ànd boobee lépp a ngi fi lépp a lépp tey la gën a jàppale kon nag sëriñ bi ne ko jëfi saytaane bu nu ko bu nu ko bu nu ko seetaan mukk muy dugg foo xamante ni bii xaj na saytu nañ ko fu ne ba mu des diggante kër maam Thierno Dere ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax bu yaari kër kenn rek la naka jëkk la ma sa jox Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall di ko xoolee Sëñ Tuubaa di ko xoolee mbokkam moom nga xam ne la may doon doon magam moom maam Thierno dafa jaayante woon ak moom jaayanteeg moom ak dundam jaayanteeg moom ak demam jox ko léppam loxo saay di ko liggéeyal ba am ngërëm noonu it ko bi mo do doon doxinu mam Cheikh Rafa rek kon ñoon fa lu dajé ñoo xamanté dañ bu baax serigne bi sax ak nettali yoon mo xamné Cheikh Rafa dafa jugoon bëgg siara ji maam Thierno kër ba ndaw yi démé yëgal ko mam maam Thierno dane nanu bal bi sakk yëpp tëral ko ndax jëm joo ji di ñu kenn du ko sakkal bunt bu muy taw kooku xam ne kuy jëru ku Cheikh rafa fa xam ak ab kon nak bu ñu jéké ba jamono ñu dem ba ñenn ci njaboot bi am loo xamante ni si ak ak ak juuyoo la si ay xalaat wala si ay wax wala si ay jëf sëriñ bi day jàpp ni loolu jëfi seytaane rek la seytaane nag du du noppalu mukk waxtu wu bi waxtu fedd li yéenéem si di tasaare yoo xam ne loolu suñu borom ko defal waaye ñu ko si doole loolu rawatina diggante bu mel ne kër maam Thierno Birahim ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi di sàpp si njaboot yépp nag loolu yi di xew ñu daal koy féetale suñu gannaaw nag daal koy féetale suñu gannaaw te def ko mu woyof toyir def ko ak sant yàlla suñu borom def ko ak ak ak delloo njukkal sëñ Tuubaa ak delloo njukkal ñaar ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ tudd loolu ñu ne ko sëriñ Mountakha digal ne ko na nga woo njaboot képp nu dajee nga nga ne leen nanu dellusiwaat te xam ne jëfi seytaane rekk la waaye yaari kër yi dara xaju si nee na képp kàddu buñ si waxoon muy la jóge foofee ak lu jóge si njaboot bi nanu xam ne jëfi seytaane rek la sëriñ bi yeddul kenn sëriñ bi xasul kenn sëriñ bi euh, waxul kenn loo xam ne lu lu lu koy lu koy naqare lay doon waaye daa bëgg a dellu si nit ñi ñu xam ne yu mel noonu wax boo gisee si diggante yu xat yii nañu xam ne jëfi seytaan rek la lu mu gannaay gannaay nag la ko yàq jaral moom seytaane ñun bëgg lu baax ak defar nanu ko jaral te jaral nañu ko te danañ ko jàpp ba sa kaw ñu dóor ko fi suuf nappaate ko ba dootu am kàttanu jóg loolu la sëriñ bi bëgg nu wan ginnaaw loolu ba mu ba mu jeex dëkk bu nu ko waxtaanee di bu nu ko xoolatee bu nu ko dégloo di te képp ku bokk si njabootu Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa nga lay digal kàddu euh, lu jëm sa lool la bu si yëkkatee di mukk say kàddu mu jëm si ñu ngi ñu ngi leen di sant bu baax nag xam na ni taxawaay kàddu lu si mën am rek bëgg seen baal ak yaakaar ko rek amuñu lu moom moom rek la ñu bëgg nag loolu wuutewu nag warmaal gi nga xam ne war nañ koo warmaalante ci suñu biir Serigne Fall moom yàlla doon bëri seen ay borom la ne woon suñu borom la bëri si moom kon nag sëriñ bi nee na ñun ñun nag ñu delluwaat si kàddu yi Cheikh Mor Mountakha yi sëñ bi nee na na ñu jéggalante ñun ñëpp na ñu tuubalante ñun ñëpp na ñu balante ak ñun ñëpp. te nañu xam nag li ñu fi indi te bàyyi lu fi muy ak taalibe te nañu xam nag ci nu boole nu bañ koo fàtte muy Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul addina yëpp da koo jaay addina yëpp da koo def li tubaab di wax ngir ñun taalibe yi ñu am tawfiix kon kookee liggéeyam boobee suñu demee ba toll si xam bii waruñoo seetaan dara di ko yàq seen dina te dara mënu ko yàq kon nag dinañ si waat xel yi ndigal daal mooy nee loolu fi jiwoon na ndigal Cheikh Mountakha mu ne ko naka jottali taalibe yi njabootu Cheikh Fall gépp ne bu ko kenn waxtaanee day bu ko kenn tuddati bu si kenn waxati ñëpp nañ ko delloo si xam ne mbirum seytaane la te seytaane ji moom daan nañ ko ba noppi. Serigne baa ngi sant ñëpp waaw Serigne Fallou nee na fas nañ ko yéenee jëfe fas nañ ko yéenee jëfe waaw ñun ñëpp ndigal dong la ñuy déglu jafe ndigal moo la fi dindi te moo la fi bàyyi sëñ bi di koy wax saa su ne te li ñu nawee ñun mooy nangu ndigal rek ak nangu ko jëfe kon nag ndigal loolu yi sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañ ko jëfe ku si gisati lu ñaaw wala lu lu nuróog loolu si ab téléphone waxu gaa yi xew na ko romb jàll te dañ koo xool dañu yàq rek Thank you.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

wooteel 77 677 77 08